Bienvenue sur Salam Vision. tali yi day ah jeexal nit ñi de tali terminé yéene kaay juróom-ñaareelu fanu koor gi day waaw bakkan ni lu tolloo juróom benn doomu aadama ci benn accident day ci yoonu Fatick gaañoo dee inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ah maa ko wax lu tolloo ñeen fukk ak juróom benn ci ay doomu aadama am ay gaañu yu miti miti nag laa la wax allahu akbar diggante benn bus la ak benn camion remorque ah waaw yoonu njongorool gële yéene kaay dama ne juróom-benn ci ay doomu aadama daal di dee allahu akbar laa ilaha illallah ñeen ay gaañu-gaañu mitti mitti laa la wax bu Fatick boobee lañ leen mujj yóbbu te gis nga jooje waaw tali bi ray ah tribune yéene kaay nee na syndicat gi njaboote waa ñaxtu la ñu xëyee démb ca Nabil Sukar ak hôpital principal bu Ndakaaru la ñuy ñaxtu ak ko laaj mooy seenu ndàmp ci wàllum corona gi ci covid bi waaw Issa Gueye ànd gësëm ah nee Mauritanie a aca Patte d'Oie waaye nag jàpp leen ne xeex bi kon day tasaaroo ci biir Sénégal gépp Cheikh Sadibou Diop moom nee na président Macky Sall woo woo góogóor woo jàmbaar woo béte béte aha waaw nee na président Macky Sall woo di woo tamit kii di ministre de la santé action sociale ndaxte nee nañu ñoom dañoo am ay collègues yoo xam ne dañoo corona dañ leen a waaw te kumba am ndey kumba amul ndey gi xam ne nag moom la ñu nimmiku ci waa kër yi nekk ci collectivité rey na ñeenti nit laa la wax allahu akbar fukk ak juróom ci ay doomu aadama la daaneel fukk ak juróom ñaar Sowetaas professeur Moussa Seydi ci critique yéene kaay waaw nee na en tout la lii day kenn tëddatu ca alhamdulilahi rabbil alamin kaa yaa ngay wàññee ko waaw waaye professeur Moussa Seydi nee na ñaxu vaccin yi ah, la ñu soxla day ak li fi nekk comme yàlla ak yàlli di ñax yi matul de danañu amaat beneen centre procréation médicalement gi ca hôpital Dalal Jàmm la jamono jooje nga xam ni plateau wu dala jàmm ma ña koy defar waaw le témoin yéene kaay nee gis nga ci daanu Kolda ge hôpital régional ba ca boppam amul gynécologue ar d'Italie mënta ne maa la wax li ñetti weeru yàllaa ngi ni lée lu tol amul gynécologue laa la doy na waar li doy waar kay libération yéene kaay nee mooy ca kër Matar Gueye joowal xale bu jigéen bi am kon ñetti at ñu gisoon ko ca foos ba ñu ray ko waaw ñaar ñoo xam ni xel daa présidentielle boobee ngir delloowaat na xale yi ci ak wutal leen liggéey waaw jàpp leen ne lépp nag daal dinay pare aha suba ci alxamis dama ne président Macky Sall nga xaalisam bi nga xam ne moom la war a xeexee ak wàllum chômage googee xaalis baa ngi teew ministre de l'économie day moo war a taxawal programme bi ci ñeenti téeméer ak juróom fukki milliards maanaam at bu ne ministre bi dana ci lu tolloog téeméer ak juróom fukki ci ay structure yi nga xam ne financé moo leen tax a jóg ak wutal xëy xale yi lée waaw dañ leen di fusionné di dañ leen di boole di évidence yéene kaay ne caravane sensibilisation bi day ak information ñaax doomu aadama yi waaw ci wàllum finance islamique ba day Touba la gaa yi doore Fatou Diané mi nga xam ne mooy coordonnatrice su promise daal di ney financé lu tolloog ñaari téeméeri million ay jigéen aha waaw waaw Fatou Diané mooy coordonnatrice su promise ca jamono joojee deer bi waaw en tout cas rek di ko critiquer rek exclusive Mansour Faye waaw moo ko Alioune day ña cay xuloo de ña ngay de maar day tali waaw parce que Alioune ci boppam kon moo njëkk a attaqué bii nga xam ni Pape Amadou Sarr moo ko jiite te Pape Amadou Sarr moo mais booyu Marème Faye la de protégé wu Marème Faye la de moo taxit Mansour Faye càmmiñal Marème ca phase Facebook am démb waaw nee na militants yi def leen attention parce que bii mi ngi liggéey liggéey boo xam ne bu ama am solo la laa la wax kaa bi nga xam ne nag Aliou Sall daal dina koy song ko ndeer doon rako Macky Sall ak tontu bi nga xam ne Mansour Faye mako Marème Faye moom la tontu day guerre lay saf de guerre lay saf ci diggante Aliou Sall ak Mansour Faye direct news de en tout cas Mamadou Lamine Diallo daal la mu gis ci luy faj nag wàllum chômage gi l'industrialisation nee nekkul sax saafara bi de mais mooy yoon bi mbay mii de il faut mu méngoo jamono yéene kaay pa jogoy fay bi fa ñuy liggéey ci li ñu tegul fenn jaay doole moo tax ay société bi ah waaw lañ yóbbu ca kanamu justice laa la wax allahu akbar dañ leen a respecté kon benn yoon amul benn négociation boo xam ne kon ubbi nañ ko ca te la ca gën a doy waar mooy même seen bi dañ koo dàq eh way samba eh way samba sans l'autorisation de l'inspecteur du travail yaay doole le témoin yéene kaay ne waaye Mimi Aminata Touré ak ABC Aline Badara Cissé lan la ñuy wàcc ñoom ñaar lan la ñuy préparé en tout cas Aline day waaw seeti woon na Mimi Touré démb ca këram nga ca yoof ñëf yow nit ñi di bañ troisième mandat nga dem ba sixième sut côté yéene moo tax it nañ ko président Tchad ba day daal dinay dee Idriss Déby mi ne kon sixième mandat mba alluntin waaw nee na ne Tchad gii dugg na ci guddi gu bët sa tegul institut ci dëgg sax vox populi ne ginnaaw fanweeri atu yàlla yoo xam ni kon def ko ca nguur ga ñu daal di koy fal altine juróom-benneelu mandat talaata ñu daal di koy rey allahu akbar nee nañ doom jaa ko akbar laa ilaha illa allah nee dañ koo reyee ci Mao ke nee loolu amul rey gi amul te doomam di nga xam ne moo ko remplacé di Mahamad Idriss Déby Itno waaw nee paa bi juru ko de maar di taali doomu Idriss Déby dëgg Zakaria Déby mooy ambassadeur u Tchad ca Abu Dhabi Al Abdel Karim Déby directeur de cabinet waaw d'accord ñu benn yoon ci ki ko wutu laa la wax jabar ja moom nee may dem ca Dubaï ak xale ya en tout kii wutu ko de bakana ma ngi ci xootu gerte laa que constitution bi ci yi ya nee na njëkk enquête yéene kaay ne déedéet Sahel kay mi ngi yëngu di lox laa la wax ma ngay trembler de critique yéene kaay ne Aliou Sall day waaw mbaadu day dellu si waat bu dee lañ ko digoon day ne ko bàyyil sa mandat yëpp tekki sa ndomba tànk te caisse de dépôt et waaw bu ko defee justice bi nag mën a leeral kon coowal pétrole bi njiital AMS waaw justice boobee daal di koy setal procureur ci boppam daal di classé dossier ba sans suite kon kay a <laughs>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 su ko bal dalee ca kanam du ca ginnaaw ga jaanam wàcc na ca nag moom président Idriss Déby daf ko doon neex lool ñu koy jàppee guerrier aji xare Cheikh Yérim Seck ba tey ak yéenekaay bi di observateur ci nettali ne atum 2008 daje woon na ak moom njiital Tchad Idriss Déby mu ko naan bis danañ mës a dégg Idriss Déby faatu na de waaye du mës a doon mu ne jàpp nañ ko ne prisonnier wala ñu jàpp ko ci tooli xare wàllum kaaraange nag ak na Idriss Déby nekke woon barrage ci fippuy Sahel gi Cheikh Yérim Seck ci njàngatam ne lépp mu ngi wékku rek ci ëllëgu nguuram moom Déby bu fekkee ne yànqul rek